ñi ci woon ñi tànc woon ñëpp moom dañoo dee. ñi ci woon ñëpp moom bi mu ñëwee moom fekk naa ñu dee. Euh, ki ñu ci mujj tiire mooy doon chauffeur bi xaw ma apprenti bi. boobu moom parce que mënuñu ko woon a parce que dafa coincé woon. waaw. horaire ngiig Fall la dafay jóge ngiig chaque jour di dem Dakar bon xam maa bii yoon nag euh, dafa amoon benn ngénte bu amoon foofu ñu ci bare ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci accident bi ci ngénte boobu lañ jóge jëloon horaire bi pour dem pour dem Dakar interrogé na ci benn pa mu mom wax deug yalla sama ñetti dom bokku nañ ci accident bi euh, den nañ ci waaw. bon ay 6 h moins 5 ans parce que heure julli li dal man bo fekk na ma ci jakk ji mais bima déggé ki bi rek la taal sama auto ñew heure julli dal la te lu ko indi nak benn mbam te koy ñaan aussi diko ñaan gouvernement bi que ni. mbaam yi nga xam ne ak fas yi nga xam ne bu ñu bayee ba pare bàyyi leen ñuy taxawaalu ñuy indi accident yu mel nii wax dëgg yàlla war nañ cee jël ay mesures deuxièmement aussi wax dëgg yàlla daaw dem naa ba ndar pour euh, doodaan yi wax nañ ci wax nañ ci ba sonn mënuñoo fexe ba installé fi ay doodaan yu mel ne diggante paal ba ngay ak si màkk brage wax dëgg yàlla war nañ ñoo dimbali installé ñu ci dëkk yooyu ay doodaan parce que chaque fois accident mortel rek moo fi am kon nag ñoo ngi ñaan gouvernement bi vraiment do daan yoy mu defal ñu ci télé bi ba nga xam ci ah, accident dana am waye aussi do doo daan amee ci biir dëkk yi moom accident dana ci wàññi. par les sirènes des sapeurs pompiers qu'il y avait eu un accident et ça devait être très proche et surtout se pour voir euh, pour s'enquérir de la question. Arrivé sur les lieux, vraiment j'ai trouvé que déjà il y avait des morts euh, qui étaient déjà installés. Euh, quelque temps après, euh, l'autorité administrative, le préfet, le gouverneur, le sous-préfet de Sakal et le district médical se sont présentés pour secourir, n'est-ce pas, les blessés. Euh, il était là, tout le monde, il était là. Vraiment, c'était un état piteux que nous déplorons. le gouvernement, nous euh, les animaux en divagation, nous mesure. Parce que dans tous les accidents, généralement, ce sont les animaux en divagation. Les ânes, les juments qu'on laisse après euh, Deuxièmement aussi, on veut que vraiment depuis des années, des années, euh, nous, avons fait des démarches pour qu'on installe au moins des cassis au niveau des, des, villages. Certes, il y aura des accidents, mais s'il y a des, des dodans au niveau des villages, ça va amoindrir, n'est-ce pas, le nombre d'accidents. Quand c'était complètement aplati, surtout le militaire, c'était foutu. Parce que euh, ceux qui sont sauvés, pour le moment, euh, sont dans un état parce que le véhicule était complètement écrasé par le camion. Son coup, 19 morts sur le coup. On a évacué des, survivants, mais exactement, je ne sais pas euh, le nombre.